voilà mbokk yi tey nekkoon audition Ndeye Khady mi propriétaire Sweet Beauty voilà Ndeye ngi noonu di génn moom ngeen di gis en image noonu ginnaaw audition am ànd ak borom këram moom mooy dem noonu ànd ak gendarme waa donc oto bi moo indi Ndeye Khady mi ngi noonu di dem mi ngi noonu di dem Ndeye Khady ngi noonu Ndeye Khady ngi noonu nangul wax ak kenn moom ngeen di seen ci oto bi nii ci kanam ni Ndeye Khady ngi noonu